te gewel Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka BAS BAS BAS BAS Basirou Ka Basirou Ka neex olof Ndiaye nee lu ko jar a ko jar te olof Ndiaye day faral di wax naan mag bu naanee ndox bu tàng suukar saa tax xëy na nag li nga sekk bas ba nga taasul ko loolu yaa ko xam jàkkaarloog àdduna nga wax ñoom waa salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu journaliste yi ak jigéen ñi ñëpp ma jaañ bas dafa baax eh, di nuyu yow waaw sama xarit Basirou dafa baax bi ma koy xam maak Lamine àndoon mu ñëw defar ñu fa teraanga boobu ba léegi wax dëggu si yàlla baax rek lañu xam ci moom Lamine mën na ko seere nit ku baax la man de wax dëggu yàlla lu mu xewle kenn doo jiitu barke Sëñ Bamba te waawoon pël am nañu ku baax billaay walaay talaa di ñaanal aussi Assane Ndiaye sama xarit la bu baax a baax a baax di ñaan lamb ji yan na ci yàlla def jajam. waaw doo nuyu Fatou Mbaye. na nuyu naa ko mais Bas jërëjëf kontaan naa Kaaw yéen baax yéen ñëpp maa ngi di ziar bu baax a baax maa ngi di ziar eh, Kaay ki ñëw ak kii ba ba mu yore ko andi. sama ba ba ba ba ba wol ba ba ñu la ko andi sama xarit la sama rak la di rek ma ñoon bàyyi ma ñoon aussi dafa xaritu ba ba ba ba Basiru dafa baax ah Bas ñëpp a xaritam maa koy ñaanal Bas loo bëgg yal na sa bopp defal. kon yow waa léegi. Mhm. Badou Fall. koo faral waxal rek. ñoom ñaar ñëpp mais kii mu ci état booy bi booy bi tànkam baax na de waa merci merci biir bi il faut nga toj ko kon xaw naa rek. biir buñ tojul ba heure bi est-ce dina tojati. yow kii yéen a bokk écrit bul am complexe neel kii laa faral. non kii laa faral moom. waaw looy ragal. non xam nga léegi Oh, ki sama xarit la. moom da ngay ragal ñi ñoom bàyyi ma jox kan la si suuf. ki sama xarit la kii laa faral faral yéen ak yaramay ndam di ñaan bés bi yàlla nañu fa yàlla yóbbu Assane bu bés baa fukki sa rek ñaar lay tag parce que bas. bésam lu ne ku baax a moo baax moo gore Basirou fa loo looy waxaat sëñ Bas dernier mot Bas. moo baax moo gore. loo wax nee ko Bas yaa baax yaa gore.